أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ñëwaat nañ di àndaat ak yéen ci seen télé seen yi télévision indi laat leen waxtaan kenn ci góor ñi waroon yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam kenn ci ndongo yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñooñu yàlla ci wàcce ci ñoom alquran naan leen rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi mbokk yi ki ñu indi tey fas yéene cee def waxtaan mooy kooku ñu tuddee amidu xamalatul quran mooy doyen ñi mokkal alquran yépp ki mooy seen doyen ki mooy kan mooy kabiru fuqahaul islam ki mooy kàngam mooy ki gën a mag ci ñi nga xam ne yonent bi jàngal na leen ba ñu dégg fiq ci lislaam ki moo ci gën a mag ki mooy kan ki mooy waa ji yéegoon ci garabu tàndarma yi saxaaba yi seen tànk yi di ko ree yonent bi ne leen ñaari tànkam moo gën a diis ci yàlla yowmal qiyaam ci montagne Uhud ki mooy kan mooy ki ne axastu min fiihi ay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sabiina suura laa yunaziuni fiha ahad ki mooy ki ne jànge naa ci gémmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaar fukki saar yoo xam ne du ma ci xëccoog nit du ma ci rawante ak moom ku ma ci rawanteel raw la juróom-ñaar fukki saar yoo xam ne ci gémmiñu yonent bi laa ko jàngee ci laa ko mokkale laa yunaziuni fiha ahad duma ci xëcco kenn ci juróom-ñaar fukki saar yooyu ki mooy kan ki mooy awalu man jahara bil quran baada rasul ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii moo njëkk a jàng ci quran ci kaw ñëpp di ko dégg ginnaaw yonent bi ki njëkk a yëkkati alquran ba àddina bi yëpp dégg ko ba ñëpp dégg ko moom mooy waa ji ki mooy kan mooy ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel wax ci moom waxam ju rëy ji ne man sarrahu an yaqra'a alqur'ana rataban ratban kama nazala falyaqra'hu ala qira'ati ibn ummi abd képp ku bëgg ci yéen jàng alqur'an ni ko yàlla wàcce woon ci yonent yàlla muhammad mu tooy xepp bés taq mu ne nanga ko jàng comme ni ko abdullahi ibnu ummi abd di jànge mooy kan abdullahi ibnu mas'ud radiallahu anhu wa ardaahu mbokk yi ku màgg kii ku rëy kii kàngam bi moom lañ fas yéene waxtaane tey avant l'islam di ñëw kaana yawma idin gulaaman yaafian lam yujaawizil xulma xale la woon bu ndaw boo xamante ne tollul woon mesurul woon tollul woon ci gént wa kaana yashrahu fi siaabi makkata baidan an innas lan moo doon liggéeyam mooy ku daan sori la di dugg ci xuri màkk yi sori nit ñi bu xëyee rek mi ngi ci xuri màkk mi ngi ci àll bi sori nit ñi wa maahu ganamun yaraaha li sayidiha min saadaati qurays huwa utba ibnu abi muayt lan la doon liggéey moom xale bi ba tax saa yu xëyoon rek sori nit ñi nekk ci àllu màkka bi mooy sàmmkat la woon ku daan sàmmal kenn ci sangi màkka ku tudd utba ibnu abi muaytin kooku la doon sàmmal ay gàttam looloo tax moog waa màkk bokkuñu woon aw dundin kaana naas yu naadunahu ibnu ummi abdin nit ñi daawuñu ko woowee abdullah ibnu mas'ud nan lañ ko doon woowee ibnu ummi abd tur bii la ko waa màkka doon woowee waaye amma ismuhu bu dee turam abdullahi turam abdullahi la wa amma ismu abihi bu dee turu baayam fa mas'ud góor guñ naan mas'ud mooy baayam moo tax ñu tuddee ko abdullahi ibnu mas'ud fa kaana alxulaamu yasma'u axbaar annabi loolu yépp nag nga xam ne doon na dem ci àll ba di fa nekk nekk sàmmkat loolu yépp terewu ko doon na dégg ay xabaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allazi zahara fi qawmihi yonent bi nga xam ne feeñ na ci jamono feeñ ci ay nitam feeñ ca mag xale bi sàmmkat la woon waaye bu demee sàmmi ba ñëwaat rek dina dégg nit ñi di waxtaane muhammad muhammad muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy dégg ci moom ay xabaar waaye falaa ya abu aloha li sigari sinihi min jihatin loolu yépp juralu ko woon information yooyu mu doon dégg yëpp juralu ko woon taxu woon ko mu yittewoo mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan dégg rek waaye bàyyi ci woon xel joxu ko woon yitte lu waral loolu mooy wali bu'dihi an mujtama'il makki min jihatin uxra ndax moom sori gi mu sori woon société bi daan nekk ci àll ba nekk sàmmkat looloo tax dina dégg ay xabaar waaye xabaar yi du ci bàyyi xel ñaareel bi mooy da daan génn teel yóbbu xar yi yóbbu gàtt yi nga xam ne moom la daan sàmm loolu tamit juraloon na ko muy dégg ay xabaar waaye du ci bàyyi xel lu tax ndax su génnee laa yaudu biha illa ida aqbala lleyl du dellu siwaat lu dul bu guddi jotee fajar lay génn guddi lay ñibbisi loolu moo tax xabaar yi daan xew màkk information yi daan tasaaroo ba biir màkk même bu fekkee daana ko dégg daawu ci bàyyi xel daawu ko yittewoo wa fi zaata yawmin wa fi daati yawmin absara alxulaamu almakkiyu abdullahi ibnu mas'ud kahlayni alayhima alwaqaaru yattajihaani naxwa min baidin benn bis abdullahi ibnu mas'ud nekk ci àll ba yor ay géttam yor ay xaram di sàmm mu seen ñaari kilifa ñaari mag yoo xam ne seeni melokaan ak lañu sol ku leen séen rek danga leen wekk danga leen naw ndax seen melokaan mu séen leen fu sori ñoom ñaar ñu jëmsi ci moom waaye ñoom ñaar ñooñu moom Abdallah ibnu Mas'ud li mu seetlu ci ñoom ñaar mooy dañoo sonn coonoo ngi leen di wër penku ak sow ndeyjoor ak càmmoñ ni mu loon xoole moom abdullah ibnu mas'ud seetluwaan na ci ñoom ñaar ne ñii ñu mar lañ ñii ñu xiif lañ waaye ñii ñu sonn lañ donte ne li mu seetlu ci ñoom ne ñu ñu weg la gis na ci ñoom melokaanu wegeel wee terewul gis na ci ñoom tamit melokaanu coono gis na ci ñoom tamit melokaanu mar ak xiif fa lamma waqafa alayhi sallama ñoom ñaar ba ñu ñëwee ba jege ko moom xale bi abdullah ibnu mas'ud ñoom ñaar ñooñu ana lan lañ wax ak xale bi mooy wa qaala dañ ko nuyu ne ko yal na jàmm nekk ci yow wa qaala ya gulaam ahlib lana min hadihi siyaahi ma nudfiu bihi zamana wa nabullu uruqana fa qaala algulaamu la afalu falganamu laysat lii wa ana alayha mutaman ba ñu nuyoo gone gi ne ko bokk na ca lañ ko wax e yow xale bi ñun de danoo mar dañu bëgg xar yi bu dee am na soow nga may nu ci ñu ratt naan daa di tooyal sunu put daa di faj sunu mar ñu tooyal sunu put faj sunu mar xale bi na leen loolu de mënuma ko lu tax gàtt yi moomuma ko dañ ma ko sàmmloo dañ ma ko dénk wa ana alayha mutamanun man dañ ma ko dénk ndeysaan ndeke nekk xale du tere nga wóor du tere nga jub surtout say kilifa bu ñu amee ci yow confiance dénk la mbir li la ci war mooy toppatoo sàmm comme abdallah ibnu mas'ud mi wiitaay nekk ci àll ba terewul mu xam ne loo moomul moomoo ko loo moomul moomoo ñaari mag ñooñu munoon na leen a tiit munoon leen a ragal wala mu bëgg lu leen neex ba mu jox leen lu mu moomul waaye def leen ne laa afalu duma ko def fal ganamu laysat lii gàtt yi moomu ma ko wa ana alayha mutamanun man de dan ma koo dénk waaye xool leen ñaar ñooñu tamit agressé wuñu xale bi xasuñ ko dóoruñu ko ñoom ñaar falam yunkira ar rajulaani ñoom ñaar bañuñu li xale bi def sibuñu ko xasuñu ko wa bada ala wajihima arrida anhu bal sax mbokk yi ñoom ñaar ñooñu ba xale bi waxee loolu seeni kanam yi dañoo leer ñu kontaan ci xale bi summa qaala lahu ahaduhuma kenn ci ñoom ñaari mag ñooñu daan ne xale bi waaw comme demee na noonu moomoo ko dañ la ko dénk xar yi nga yor ndax am na ci xarum tëng xar mu amagul doom xar mu jigéen mu amagul doom am tëng ndax am na ci mu daal leen ne waaw daal leen di joxoñ benn xar mu joxoñ leen am mbote ci biir jur yi kenn ci ñaari mag ñooñu ñaari kilifa yooyu daal di xëcc be xarma téye ko ak loxoom càmmoñ jël loxoom ndeyjoor bi dawale ko ca tànki xar ba jàpp ween yi am lu muy jàng ca gémmiñ ga di raay ween yi am lu muy jàng di raay ween wi Abdullah ibnu Mas'ud xale bi taxaw di xool ba ci yàgg mu yéemu ma ngay wax ca biir xelam naka la xar mu amulee doom am tëng naka lay amee soow loolu bañ jamono la commencé xale bi xool bàyyi mbir bàyyi xel ci mbir mi fa qaala fi nafsihi wa mata kanat siyaahu sagira allati lan tamzu alayha alquxulu tudiru laban waaw kañ la am tëng commencé am soow ban jamono lañ nekk waaye mbokk yi ci ay minute yu gàtt yooyu nga xam ne waa ji kilifa googu góor googu mi ngi téye xar mi di raay ween wi ween yi fees na ak soow mu ne ko ndax am nga foofu am mbàttu ndax am nga foofu am mbàttu mu ne ko déedéet kenn ca ket ca ñaar ñi àndoon daal di wàcc ci montagne bi ut fa ab xeer bu xóot bu am pax daal di koy indi daal di koy jottali moroomam ma mu àndaloon kooku commencé di xëcc weeni xarma soo may sotteeku mu naan ba biiram fees ka mu àndaloon naan ñu jox xale bi ne ko naanal lii kéemtaan mooy ñoom ñett ñëpp naan nañ ba màndi te sow mi des na ci xar mi lan la Abdullah ibnu Mas'ud wax ba mu gisee sow mi di sotteeku mu ne wa ana la akaadu usaddiqu ma ara lii may gis de wax dëgg yàlla mënuma koo dëggal waaye lii moom waaye naan nañ ba màndi ñoom ñeert ñëpp ka doon ratt xar ma daan ne soow mi taxawal soow mi taxaw mu ne ween yi dellul fa nga nekkoon ween yi daal di dellu mbokk yi ndax xam ngeen ñaar ñooñu kan ak kan la woon ndax xam ngeen ki doon ratt xar mi kan la ndax xam ngeen ko uti woon xeer ba kan la ka doon ratt xar ma mooy sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ka uti woon xeer ba ñuy naanee mooy abu bakrin siddiq radiallahu anhu arda Abdullah ibnu Mas'ud gisee loolu mu daan ne ki doon ratt xar mi muy yonent bi allim nii min haadha al qawli alladi qultahu lii nga doon jàng di raay weenu xar mi soow mi di sotteeku jàngal ma ko fa qaala lii innaka gulaamun muallamun ndeysaan yonent bi daal di koy noonu ne ko xale nga xale nga nee na kaanat haadihi bidayatu qissati abdullahi ibnu mas'ud ma al islaam fii la is tàmbali nettali histoire abdullahi ibnu mas'ud tàmbalee ci lislaam fii la commencé gëstu di déglu nag mbirum lislaam ndax comme gis na lii mu gis muy kéemtaan muy kaawteef lii kenn wanu ko ko kenn jàngalu ko ko daf ko gis nii fekke ko jëhëran teewe ko mu gis yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam def ko ci kanamam ànd ak soppeem ba abu bakar lan moo leen génne woon ca àll ba ba ñëw ci xuri màkk lan moo leen génne woon dëkk ba ba ñëw ci biir xur wi ci màkk ca àll ba mooy waa Quraysh ñoo leen sonaloon ñoo leen fitnaaloon teg leen ay coono ci ay xas ci ay saaga ci wax yu ñaaw ci fitna ba ñu daw dëkk ba dugg ci xur ba yàlla def ñu daal di fay tegeeg dajeeg xale bi muy abdullah ibnu mas'ud keroog la mbëggeelu yonente beeg abou bakar nekk ci abdullah ibnu mas'ud abdullah ibnu mas'ud nekk ci xolu yonente bi ak abou bakar saddiq waaye xale ba it dugg na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Aboubacar dugg nañ ca xolam demuñu waxtu wu néew yonent bi ak Aboubacar di waxtaan di waxtaane mbiru Abdullah ibn Mas'ud naan kii xale bii am nañ ci moom yaakaar ëllëg nañ ko bàyyi xel ku ñu am yaakaar ëllëg la am nañ yaakaar ne xale bi dina leen mës a wuyu si demuñu waxtu wu bari demuñu ay weer demuñu ay at hatta aslama abdullah ibnu mas'ud ba abdullah ibnu mas'ud ñëw toog ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di dugg ci lislaam waaye ba mu duggee ci lislaam mbokk yi xool leen lan la sàkku ci yonent bi arada nafsahu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li yaxdimahu mu ne yonent dama bëgg a ñëw liggéeyal la nekk sa jëwriñ di la liggéeyal ànd ak yow yonent bi nangul ko loolu fa wadaahu rasul sallallahu alayhi wa sallam fii xidmatihi fii xidmatihi yonent bi daal di koy jël def ko jëwriñam def ko ci wetam def ko ci peggam mu koy liggéeyal fan la xale bi bàyyi ko munzu zalikal yowm ca jamono jooju depuis jamono jooju intaqala al gulaam abdullah ibnu mas'ud min riayati alxanam ila xidmati saydi alxalqi wal umam sallallahu alayhi wa sallam xale bi bàyyeekoo na ca liggéeyal gàtt liggéeyal ay jur bàyyeekoo na sàmm léegi kan lay liggéeyal ki gën ki mbindeef yi muhammad sallallahu alayhi wa sallam man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën xale ba ba mu bàyyee la mu nekkoon bàyyi sàmm lan la ko yàlla faye mooy mu liggéeyal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la li ko gën ba mu tàmbali liggéeyal yonent bi di ànd ak yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam taqoon ak yonent bi comme ni takkandeer di takke boroomam nit ni muy ànd ak takkandeeram noonu la xale bi ànd ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa kaana yurafiquhu fi xillihi wa tarxilihi day ànd ak moom ci tukki di ànd ak moom ci teew fu ñu seen yonent bi seen ko ci biir këram ci biti kër gi moo daan yee yonent bi buy nelaw bu yonent bi daan sangu moo daan jël mbalaan muure ko yonent bi ba kenn du ko seen bu yonent bi daan raxas ay dàllam moo ko ci daan jàppale bu yonent bi duggee këram mu ànd ak moom bu buggee génn mu ànd ak moom moo ko doon yoral yatam yat wi yonent bi doon gàddu di ko doxee Abdullah ibnu Mas'ud moo ko daan téye bu yonent bi aajoo woon dugg ci biir néegam bëgg a noppalu wala muy tëdd bu delloo bunt bi Abdullah ibnu Mas'ud moo ci sës xeer kon mujj na nekk moom xale bi ñu koy woowee ki yore secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na sax ba yonent bi jox ko ndigal ne ko sooy ñëw ci man amul yëglu waxtu wu la neex minute bu la neex bis bu la neex num la neexee rek duggal moo tax ñu wooye woon ko saahibi sirri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ki yoroon sekkire yonent bi Abdullah ibnu Mas'ud mbokk yi yaroona ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jël jikko yonent bi roy yonent bi jël ay jikkoom toppandoo ko ci lépp waxin doxin ci melokaanam ba ñu xàmmee ko mujj ko xàmmee ci ki gën a roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nekkuloon doon ànd ak yonent bi rek léeg-léeg nga gis nit di ànd ak kilifa waaye la muy yittewoo ci ànd ak kilifa gi mooy am-am bi kilifa gi am wala bëgg ñu ne diw diw lay àndal waaye xale bi nii mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yar ko waaye dafa nangu jàng wa taallama ibnu mas'ud fi madrasati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa kaana min aqra'i sahaaba lil qur'an dafa jàng dafa nangu jàng ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa leen sànq bi ñuy ubbi nee na juróom-ñaar fukki saar ci alquranul karim ci gémmiñi yonent bi laa ko mokkalee duma ci xëccoo kenn mujj na jàng alquran ba nekk min aqra is sahaaba lil quran ci ñi gën a jàng alquran ci sahaaba yi wa afqahihim li maanihi mu gën a leen a dégg maanaay alquran fu saar yi wàcc kañ la wàcc lu tax mu wàcc lan mooy atte bi mu gën leen koo dégg wa alamihim bi charillah mu gën a xam sahaaba yi lan mooy sharia lan mooy atte woo diine loolu li ciy wane tegtal mooy benn waaye ñëw na ci Omar ibnul Xataab ci jamono Omar fekk Omar aji ànd ak sahaaba yi ànd ak délégation bu mag nekk ci Arafat Omar jékki-jékki rek ci biir mbooloo mi benn waaye ne ko ñëw naa yow amirul muminin maa ngi nii ñëw jóge Kuufa ca Iraq waaye wa taraktu fiha rajulan yumlim la saahif an zahril qalb bàyyi naa fa benn waaye daal boo xam ne nu ko neex lay jànge alquran ma nga taxaw di tari rek nit ñey bind bi waa ji daanele kàddoom mbooloo mi yépp li ñuy njëkk a seetlu mooy dañoo gis Omar soppeeku ñu gis Omar di funki ndax mer soppeeku boroom xam-xam yi nee nañ Omar keroog fa gadiba Omar gadaban qallama gadiba mislahu Omar mer na mis mer moo xam ne néew na lu muy mer mer mu mel noonu ñenn ñi sax dañu ne Omar dafa mer ba bëgg a fees penku mbooloo mi ak sowu mbooloo mi ndax mer gu mu mer waaye mu ne waa ji way xàkk yàlla na nga dee waa jooju kan la nu mu tudd qaala mu ne ko abdullah ibnu mas'ud man de dégg naa ñu ne abdullah ibnu mas'ud la tudd bi mu waxee loolu rek li ñu njëkk a seetlu mbooloo ma lu ñu njëkk a gis mooy ñu gis omar commencé rees mer mi commencé deñ kanam gi commencé féex omar commencé dal mu ne wallahi ma aalamu annahu baqiya ahadun min annaasi axaqu bi hada al amr minhu mar ne bu dee abdullah ibnu mas'ud la day tey jii fii ñu toll ci àddina bi tey fii ñu toll ci jullit yi gisuma ku ko gën a yeyoo loolu bu fekkente ne am na ku war a def loolu toog ci mbooloo ci pénc di jàng alquran nit ñi bind tey jii kooku nga wax moom dong laa gis tey mu yeyoo ko abdullah ibnu mas'ud mu ne doy àddina beneen misaal ci lu ñu leen di wax ne kii kàngam la kilifa la ci ñi raw ci sahaa yi la sahaaba yi la bokk omar nee na benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dem kër abou bakar saddiq guddee fa trop ñu daan waxtaane lenn ci mbiru jullit yi boobu guddi na trop omar mi nettali nee na ñu génn man ak yonent bi ak abou bakar ñu ñëw ba jege jàkk ji ñu seen benn waaye mi ngi ci digg jàkk ji taxaw di naafila di jàng alquran nee na yonent bi daal di taxaw fa waqara fa waqafa rasul sallallahu alayhi wa sallam yastamiu ilayhi yonent bi taxaw di déglu waa jooju waa ji jàng dugg ci alquran xóot ci trop summa iltafata ilayna wa qaal mu nee na yonent bi daal di gestu ne abubakar ak umar man sarrahu an yaqra'a alqur'ana ratban kama nazala falyaqra'ahu ala qira'ati ibnu ummi abd képp ku bëgg jàng alquran mu tooy xepp comme ni ko yàlla wàccee na nga ko jàngee ni ko abdullah ibnu mas'ud mii di jàngee nee na abdullah ibnu mas'ud ba mu jull ba mu taxawee ci naafilaam boobu ba sujjóot sëlmal suma jalasa dafa toog yeddu muy ñaan mu ngi yëkkati loolu yëpp yonent baa ngi taxaw ci ginnaawam di ko xool mais gisu ko yëgu ko nee na abdullah ibnu mas'ud mu ngi yëkkati ay loxoom boroomam di ñaan yonent bi nekk ci ginnaawam naan amin sal tuuta ñaanal yàlla jox la yonent baa ngi ci ginnaaw naan amin naan abdullah ibn masud ñaanal yàlla jox la sal tuuta ñaanal yàlla jox la omar ne su ma xëyee suba wallahi dinaa dem kër abdullah ibn masud ma xamal ko lii xabaar bii li xew démb ci guddi ne ko man ak yonent man ak abubakar ak umar man yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Aboubacar ak man mii Umar di nettali toog nañ sa ginnaaw ginnaaw ba nga naafalee toog di ñaan yonent bi di la wax amin dinaa la bégal waaye Umar nee na ba ma xëyee fajar ma dem doon ko wax Abdullah ibnu Mas'ud fa wallahi fekk naa Aboubacar jiitu na ma ba wax ko ko keroog la wax waxam ju màgg ji ne wallahi ma saabaqtu aba bakrin ila xayrin qattu illa sabaqani ilayhi musumaa njëkkante aboubacar ci lu baax lu la aboubacar njëkk na ma ci aboubacar saddiq saa yu ma njëkkanteeg moom ci lu baax mu jiitu ma ci ñii nii lañ meloon lii moo doon seeni melokaan lii moo doon seeni jëf nii la ñu àndee woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu am la ñu am mbokk yi wala ma balaga wala qad balaga min ilmi abdullahi ibnu mas'ud bi kitaabillahi annahu kaana yaqul wallahi allazi la ilaha gayru ma nazalat aya min kitaabillahi illa wa ana a'lamu ayna nazalat abdullahi ibnu mas'ud nee na maa ngi leen di giñal ci màggaayu borom bi borom bi nga xam ne amul benn buur bu ñu war a jaamu bu dul moom alquran benn aaya wàccu ci lu dul xam naa fan la wàcc ak kañ la wàcc wa aalamu fi ma nazalat xam naa ci lan la wàcc walaw alamu anna ahadan alamu minni bi kitaabillahi tanaaluhu lmatiyu la ataytuhu su ma xamoon ne am na kenn ci dëkk bi tey ci biir àddina bi ku ma gën a dégg alquran te waajooju fas mën a yegg ci moom wala mbaam wala gëléem danaa ko war dem ne ko jàngal ma ko allahu akbar mbokk yi ñii ñoo ñi yonent bi yaroon xoola waa ji nee na giñ naa ci màggaayu yàlla alquran saar yëpp xam naa fu ñu wàcc xam naa lu tax ñu wàcc terewul mu ne su ma xamoon su ma gisoon su ma déggoon koo xam ne ma ngay jàngale alquran bi te fas mën a yegg ci moom danaa jël sama fas war ko dem ci moom mu jàngal ma xoola kii li mu xam ba pare te doyalul ñun jàpp nañ ne ku ci jàng juz am ma rek da nga war a dem ca jàkka jay xeex nekk ilimaan folli ilimaan bi falu yal nañ yàlla yërëm yal nañ yàlla jubal Abdullah ibn Mas'ud nee na wa kaana rajulu minna iza ta'allama asara ayat lam yujawizuhunna kenn ci ñun su jàngoon alquranul karim jàng fukki aaya du ko paase xataa yaarif maanihi ba mu xam maanaa yi wal amalu bihinna waaye du yem ci xam ko rek mais mu jëfe ko ñun dañ doon jàng alquran fukki aaya la ñuy jël buñ jëlee fukki aaya yi danañ fexe ba dégg maanaa yi waaye danañ fexe ba jëfe ko doog a jël leneen lam yakun abdullah ibnu mas'ud mubaaligan fi ma qaala an nafsihi abdullah ibnu mas'ud mbokk yi ëppalul ci lii muy wax boppam naan man mii man nii man nii déedéet du ëppal lu tax fa haza omar ibnu alxataab radiallahu anhu yalqaa rakban fi safarin min asfaarihi walleylu muxayamun yaxjubu rakbu bi zalaamihi omar a ngi nii ibnu alxataab benn bis ci ay tukkeem mu dajeeg benn caravane benn mbooloo boobu guddi gi mu ngi lëndëm ba kenn du xàmme kenn wa kaana fi rakbi abdullah ibnu mas'ud ci biir mbooloo ma nag mbooloo moomu omar dajeel abdullah ibnu mas'ud ma nga ci biir mbooloo mi fa amara omar rajulan an yunaadihim omar daan ne benn waay wooteel mbooloo mi laajal mbooloo mi fuñ jógee xale bi daal di jóg taxaw daan ne min aynal qawmu mbooloo mi fu ngeen jóge abdullah ibnu mas'ud daal di tontu fa ajaaba abdullahi min fajjin amiq ne ko ñoo ngi jóge ci xur yi yu xóot yu sori yi ñoo ngi jóge ci dëkk yu sori yi fa qaala omar ayna turiduun omar ne fu ngeen jëm boobu xamul kii di wax ak moom xam xamul kan la Abdullah ibnu Mas'ud xamul Omar ay laaj Omar xamul ne Abdullah ibnu Mas'ud mooy tontu ndax dafa lëndëm te dañoo sorante baat yi rek ñooy diggante fu ngeen jëm fa qaala Abdullahi al bayt al atiq ñu ngi jëm makkatal mukarram fa qaala Omar inna fihim aaliman ndax mbooloo mii jëm makka di jaamu ji yàlla ndax ànd nañoo ak boroom xam-xam muy fu ñu war a taxaw Omar seen na mbooloo ne mbooloo mi nañ leen laaj fu ñu jóge mbooloo mi tontu fu ñu jëm ñu tontu Omar ne ndax ci biir mbooloo mi am na boroom xam-xam loolu luñ ciy dégg mooy mbooloo bu ñuy aji màkk dañoo war a ànd ak boroom xam-xam mbooloo bu ñuy jaamu yàlla dañoo war a ànd ak boroom xam-xam waaye mbooloo muy aji ànd ak ay simbakat ay gaynde ay musicien ay théâtre kat nekk seeni guide xam nga ne mbooloo moomu duñu aj mbooloo bu ñuy aji encadreur yi dañoo war a nekk ay boroom xam-xam waaye ay encadreur yi gaynde encadreur yi mbër encadreur yi simbakat encadreur yi musicien encadreur yi théâtre kat ñooñu ku ñu encadré ci sa aj yaa tuddee sa bopp allaaji waaye xam nga ne doo allaaji alahaaju nga Omar ba mu séenee mbooloo mi lan la wax fa qaala Omar inna fi lqawmi aaliman ndax ci biir nit ñi am na boroom xam-xam gaa yi daan ne ko waaw mbooloo mi ànd nañu ak boroom xam-xam ndax dañ naan waaw rek Omar bàyyi leen noonu déedéet Omar da leen di tester xool ndax li ñu wax dëgg la Omar ne benn waay laaj leen laaj yi seen boroom xam-xam bi ñu àndal na ko tontu Omar ne ayul quraani azam alquran lu ci gën a màgg Abdullah ibnu Mas'ud ne ko allahu la ilaha illa huwa alxayyul qayyum ayatul kursi yi mu ne leen ayul quraani ahkam alquran lu ci gën a nekk xereñ mu ne ko Abdullah ibnu Mas'ud tontu ne ko inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan wa itaa'i zil qurba fa qaala Omar ayul quraani ajma alquran lu ci gën a tënk boole lépp fa qaala abdullah ibnu mas'ud ne ko fa man yaamal mithqala daratin xayran yara wa man yaamal mithqala daratin charran yara fa qaala omar naadihim ayul qur'ani axwaf alquran lu ci gën a ragallu mu ne ko laysa bi amaniyukum wala amaniyu ahlal kitaab loolu moo ci gën a ragallu aaya boobu fa qaala omar naadihim ayul qur'ani arja alquran lu ci gën a am yaakaar abdullah ibn mas'ud ne ko qul ya ibadiya allazina ashrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru zunuba jamia innahu huwa alghafuru rahim fa qala umar naadihim afikum abdullah ibn mas'ud waa yéen mbooloo mi xanaa yéen waa jooju ñu naan abdullah ibn mas'ud da ngeen a ànd ak moom qaalu allahumma naa mbooloo mi yëpp ne ko waaw waaw waaw waaw gis ngeen ndeke mbooloo bu ñuy jaamu ji yàlla dañoo war a ànd ak ku xam mbokk yi olof yi ñoo wax ne ku xam mooy jiite yoon waaye ku xamul du jiite yoon kaana ulamaau hadihi l umma baada nabiyiha sitta kaana ulamaau hadihi l umma baada nabiyiha sittatun mbokk yi xeet wi muy xeetu lislaam seeni boroom xam-xam ginnaaw yonent yàlla muhammad juróom-benn lañ ginnaaw yonent yàlla muhammad ñi raw ci xeet wii juróom-benn lañ abdullahi ibnu omar omar ibnu alxataab abdullahi ibnu mas'ud zeyd ibnu saabit ali ibnu abi taalib ubay ibnu kaab abu musa al asari juróom-benn yi ñoo raw ci lislaam ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Omar ibn al-Khattab Abdullahi ibn Mas'ud Zeyd ibn Sabit Ali ibn Abi Talib Ubay ibn Kaab Abu Musa al-As'ari mbokk yi Abdullahi ibn Mas'ud nekkul woon rek jàngkatu Qur'an nekkul woon rek boroom xam-xam nekkul woon rek jaamukatu yàlla nekkul woon rek ku dëddu àdduna wa innama kaana maa dalika qawiyan ku dëgëroon la ci lii lépp nag mu nekk nga xam ne jàngkatu quraan la woon boroom xam-xam la woon jaamukatu yàlla la woon ku dëdd woon àdduna la ci lii lépp nag terewul woon ku dëgër la ku ñeme la jàmbaar la isa jaddal jiddu su dara desatu lu dul dee rek Abdullah ibnu Mas'ud joxe bakkanam mbokk yi loolu lu lay wan loolu mooy doy na rek keroog ba yonent bi saa salaam fekkee saxaaba yëpp toog mu ne kan mooy dem ca yéeféeri màkk jàngal leen alquran ba ñu dégg ko keroog kan moo ne woon mooy dem Abdullah ibnu Mas'ud saxaaba yëpp jóg toog ne ko déedéet bul dem ndax yow amoo famille bu la aar bàyyil ñun ñu dem mu ne leen yàlla dina ma aar Abdullah ibnu Mas'ud xëy ca yoor yoor ñëw ba ci keppaaru kaaba gi ci foofu ñu naan maqaama ibrahim abdullah ibnu mas'ud fekk yéeféeri màkk yépp a ngi toog ñépp a ngi ci seeni waxtaan mbooloo yépp a ngi toog mu daal di sakk nopp yi muslu yàlla ci seytaan daal di tàmbalee ci tur yàlla daan ne arrahman allama alquran xalaqa al insan allamahu lbayaan mu yëkkati suratu rahman xuus ci xuus ci xuus ci sori ci lool waa màkk yéeféer yi di ko xool ñu ne waa kii kan la ñu ne ibnu ummi abd waaw moom lan lay jàng dafa mel ne moom day li yonent muhammad di jàng li muhammad ibnu abdallah di jàng lay jàng ñu ne waaw ñu daal di jóg ñu tàmbali di ko dóor di ko bule di ko dóori yat di ko xaañ ba deret ji sangu ko ñu bàyyi ko mu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk sahaaba yi toog biñ ko séenee muy ñëw deret jaa ngi ko sang kanam gaa ngi toj bopp baa ngi toj mu ñëw yonent bi jàpp ko toogloo ko sahaaba yi ne ko lii lañ bañoon ci yow mu ne leen du dara su ngeen bëggee sax suba ma xëyaat delluwaat jàngalaat leen alquran bi yonent bi ne ko déedéet doy na fa xasbuka doy na fa laqad asmatahum maa yakrahuun lañu bañoon a dégg déggloo nga leen ko doy na mbokk yi abdullah ibnu masud dund na ba fekkee xilaafatu usmaan ibnu affan fekkee na jamono yonent ànd ak moom ba yonent làqu mu ànd ak omar ba omar làqu mu ànd ak usmaan radiyallahu anhum wa ardahum ci jamono usmaan mu feebar moom abdullah ibnu masud feebar bu métti bi mu feebaree moom abdullah ibnu masud omar nekk amir ousmane nekk amirul muminin dégg feebar na ñëw ziyaara si ko loolu la jullit di def boo déggee sa mbokkum jullit tawat na nga ziyaara ji ko ousmane dégg na abdullah ibnu masud feebar mu dem ziyaara ji ko bi mu ñëwee mu toog ci wetam ne ko ma tashtaki qaala zunubi mu ne ko looy jàmbat fi nga tëdd luy sa problème mu ne ko samay bàkkaar luy sa problème fi nga tëdd samay bàkkaar xoola waa ji lii mu def lépp ni mu toll ci alquran ni mu toll ci yàlla ak yonent bi terewul mu ngi tëdd ci lalu dee di xalaat ay bàkkaaram mbokk yi mbokk yi ñii dañ ñu raw te dootuñu leen dab ñii ni ñu selle ni ñu baaxee ni ñu jaamoo yàlla terewul ñuy xalaat seeni bàkkaar ñun ku ciy julli waxtu yu juróom ci jàkka ji rek tàmm yaakaar nga ne dugg nga àjjana ba pare xoola waa ji ndi mu toll yépp koo xam ne guddi da doon naafila ba yonent bi ñëw fekk ko muy naafila yonent bi déglu njàngam ba ne ku bëgg a jàng alxuraan ni ko yàlla wàccee jànge ko ni ko waa ji di jànge terewul tey mu feebar di waaja dee ñu ne ko luy sa problème mu ne samay bàkkaar Ousmane ne ko fama tashtahi lan nga bëgg mu ne ko rahmata rabbi sama yërmande borom allahu akbar luy sa problème sama bàkkaar loo bëgg yàlla yërëm ma laa ilaha illa allah yal nanu yàlla yërëm mu ne ko Ousmane ne ko waaw la nga doon bañ ma jox la ko depuis ay at liñ la ne woon nañ la koy jox dajal la ko alal jooj ñu ne woon nañ la ko jox mu ne leen soxlawu ma ko Ousmane ne ko looy bàyyee sa joom yu jigéen yi xam nga ne yow ay doom yu jigéen nga am loo leen di bàyyee mu ne ko bàyyee naa leen saar wu tudd suuratul waaqia suñ ko jàngee bépp guddi ñàkk du leen dab allahu akbar kon li ñu waxoon sànq ñëw na mooy ku déggoon alquran la loolu moo tax mu xam ne saar bi ku ko jàngal say doom ku koy jàng guddi gu nekk ñàkk du la dab muy suratul waqia iza waqaatil waqia mbokk yi usman ibnu affan mooy ki jullee abdullah ibnu mas'ud ginnaaw ba mu faatoo ci feebaram boobu keroog ba mu faatoo mbooloo mu bari ñoo ko jullee bokk na ci zubayr ibnul awam usman ibnu affan moo ko jullee ñu daal di koy suul fi ñu suul saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ca baqiye ci armeel yi nekk ci kanamu jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bokk na ci li ñuy jëriñoo ci dundu Abdullah ibn Mas'ud mooy ku bëggoon liggéey la kañ la tàmbali liggéey ba mu nekkee xale ba ma amagul seize ans la tàmbali liggéey kon bokk na ci li ñuy jële ci dundam mooy ku ñeme woon liggéey la depuis mu nekk xale ñaareel mooy ku wóor la woon gis ngeen ba ko yonent bi fekkee ca àll ba ne ko jox ñi ci xar yi mu ne moom ma ko kon ku wóor la woon ñett mooy ku amoon xam-xam la dégg ngeen mu ne jànge naa juróom-ñaar fukki saar yoo xam ne dama ko mokkale ci gémmuñu yonent bi dégg ngeen mu ne alquran aaya yëpp xam naa lu tax ñu wàcc xam naa seeni atte dégg naa maanaa bi bokk na ci li ñuy jëlee ci moom ku royoon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa roy yonent bi ba jël melokaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi moom Abdullah ibn Mas'ud keroog ba mu tëddee ci lalu dee ndénkaane yi la def ñan la ko jubal ndénkaane bi mooy ñi mokkal alquran lan la leen wax yaa xamalata alquran yanbagi li xaamili alquran an yaarifa bi leylihi ida annaasu naimun yéen ñi mokkal alquran dama bëgg ngeen xam seen guddi bu nit ñi nelaw bu guddi jotee bu nit ñi nelaw yéen ngeen xam yéenay ñan kon waru leen nelaw wa bi nahaarihi ida annaasu yafrutuun yéen ñi mokkal alquran dama bëgg bëccëg su nit ñi waxtaan ak naan ataay yéen ngeen xam yéen yéenay ñan wa bi husnihi ida annaasu yafraxuun yéen ñi mokkal alquran bu ngeen gisee nit ñi kaf di ree yéen war ngeen naqarlu yéen ñi mokkal alquran bu ngeen gisee nit ñi di kaf di xaqataay yéen da ngeen a war a jooy yéen ñi mokkal alquran su ngeen gisee mbooloo xumb yéen da ngeen a war a wéet yéen ñi mokkal alquran yi leen way moo ngeen di jooy lu baree bari leen war mooy ngeen di naqarlu lu baree bari lu leen war mooy ngeen noppi lu baree bari lu leen war mooy ngeen jàng lu baree bari bokk na ci ndénkaane Abdullah ibnu Mas'ud nee na man arada dunya addarra bil axira ku bëgg àdduna da ngay lor sa àllaaxira ku bëgg àllaaxira da ngay lor sa àdduna mu ne ee yéen nit ñi lor leen seen àdduna ci liy jeex maanaa jël leen lu dul jeex ngeen lore ko luy jeex maanaa jël leen seen àllaaxira ngeen lore ko seen àdduna mbokk yi ci yàlla Abdullah ibnu Mas'ud mu ngi faatu ci atum fanweeri at ak ñaar ca gàddaay ga ca Madinatul Munawwar amoon na ci ay at juróom benn fukk lu teg ki ko jullee mooy amirul muminin usman ibnu affan radiallahu anhum wa ardahum mbokk yi ci yàlla kii lañ leen indi loon tey muy abdullah ibnu masud ngi leen di jéglu di leen ziyaara di leen baalu aq di leen baal aq assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah. kaay kaay